autopsie euh, deseewu euh, Mamadou Moustapha Ba di ko ñaanal suñu borom yërëm ko euh, te xaare ko aljana waaye nag la nga xam ne moom moo am ci mbiram ndax procureur dafa sàkku ñu def autopsie ubbi ab enquête parce que daal mort bi daal maanaam ni mu génnee àddina naturelul daal. waaw Moustapha Ba day ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm. te xaare ko aljana mhm. yàlla dolli ko yërmande. Mhm. ndax mu tudd mu néew. xëyal na Sénégal ci ay bës liggéeyal ko mu nekk doomu Sénégal. xam nga Moustapha du politicien Moustapha Ba ma ko fii de. non du politicien xam nga souvent surtout Ousmane Sonko bu njëkk waaw c'est que Moustapha Moustapha c'est un boo xam ne daanaka ñëpp man mus naa ko gis benn yoon. ci à travers une émission la woon. Hmm. maanaam ñu dalaloon ko ci bërëb bi ma doon liggéeyee mu ñëw mu toog un gars simple àndul ak kenn ñëw def émission dem yoonam. ok euh, te dégg naa aussi générosité ndax am na sama xarit yoo xam ne jëflante nañoo ak ñoom mu am nu mu traité ak ñoom vraiment loolu générosité la. Mhm. du politicien. Moustapha c'est un c'est un c'est un c'est financier boo xam ne servir na nit ci nguur xëj na nit ñoom mu doon liggéeyandoo seen mentalité nekkoon na. Mhm. que da ngay may activité politique boo bëggee des ci li nga des. mu am ay activité politique mais activité politique yooyu sax fasu ci trop. dafa suñu trop boo demee ci rencontre politique yi xëñ na di nga ko gis bi Amadou Ba di campagne. Ah. à Kaolack meeting beeg yeneen ak yeneen. Mhm. mais à part loolu doo gis Moustapha fu mu activé woo de manière vraiment à fond ci wàllu politique kon du politicien. ce qui est malheureux dans ça dans mooy le fait que ñu bëgg a politiser desem. politique waaw dañ koy bon boo dégloo discours yi ci am seen c'est des discours politique discours Cheikh Bara Dolly. Hmm. c'est un discours politique. discours maître El Hadji Diouf malgré nee na moom mooy avocat famille bi c'est un discours politique. Ndeya ah, mais nag ñoom muur dañoo sàkku rek nag. dañoo sàkku jox leen benn papier ñu dem nga le bon sens voudrait. man jour bi ñu ma annoncé décès Moustapha Ba. maa ngi maa ñi may wax ñi ma dégg xam ne li may wax dama ci amoon ay plusieurs questions. plusieurs questions am sama benn compé ba léegi dafa ma yónnee ay capture lu mu gis dafa may yónnee parce que bi moom moomu annoncé ne Moustapha Ba décédé na. après j' mu mel nii sama mémoire bi dafa dafa daw quoi j'ai pensé à beaucoup de choses ma ne lii mais comme awma benn information. voilà ñu waxtaan ci nii rek quoi. sénégalais bu mën a décédé. Mhm. nga tudd mustafa Ba nga tudd Ablaye Fall wala nga tudd noo mën a doon décès bi bu amee ay lënt-lënt. Mhm. dañoo war a leeral ndax àdduna foofu la toll. waaw Moustapha day ngi ci boromam. Mhm. war nañ ko jébbal boromam ci nu mu gën a gaawee selon ni ni ni ni ni ko diineem tënkee. Ah. wante bu nekkee dee bi dafa am ay lënt-lënt muy famem muy sénégalais yi muy ñëpp war am intérêt pour mbir mi leer. voilà mi leer ndax tey soo gisee xibaar yi génn kese wax dëgg fa yàlla. Mm-hmm. ba dëgg da nga taxaw rek di xool da nga ne ah nañu def ndànk yow ku tukki. nga dem a dem ba sa famille amatul ci benn xibaar uh-huh. sa jabar jóge fii ak mbokkam ak walla sa mbokk dem seeti la France uh-huh. ñëw hôtel bi nga nekkoon gisuñu la fekk fa say bagage ñuy wër di wër di wër ba ñu ne da nga génnoon di dem pharmacie daanu ñu yóbbu hôpital mu ñëw fekk nga faatu ndeyaa bu doon sama mbokk la dinaa ne lii nañ ko leeral te man foofu man xamuma foofu rek laa mës a dégg sénégalais yi nit dee ñu ne ah nañ ko leeral mosuma dégg nit dee ñu ne noonu nañu jox suñ koor ko mu leer que moo tax wax ji bëri. jarul moom moo ma jaaxal. jarul procureur ci dugal loxo man loolu dafa ma jaaxal. xam nga ñu ngi dem bay wax ay ñaari signature yu gis ci communiqué. le procureur de la république dafa yor cabinet cabinet boo xam ne dafa composé ay procureur ay substitut bu fekkee ne xam nga boo xee moo bi sax nit ñi mën nañ bañ a comprendre man dama koy wax ci wolof parce que noonu laa bëgg di waxee mu am ay procureur yoo xam ne dañ faa nekk ci biir cabinet bi di ko jàppale ci liggéey bi uh-huh. procureur yooyu noonu ku ci nekk sa dafay engagé cabinet bi cest à le procureur bu fi c'était quoi un dimanche bu uh-huh, fekkee le procureur de la République est en déplacement mais substitut mooy def mooy def communiqué bi génne ko malgré cette signature là dafay engagé le procureur de la République tey jii bu fekkoon ne document boobu wérul. Ah. parquet génn na démentir ko bu yàgg. voilà parce que man ba ma déggee lool noonu dama naa xaar. ba parquet non bu ñuy euh, yóbbu ci ay détails. effectivement man démb laa wax nit du faatu ngay nekk di indi ay débat xam nga dama ne démentir te ñoom ñoo bëgg a yee débat bi. Moustapha Ba génn na àdduna néewam ñëw na. procureur bëgg na am lu gën a leer ci décès parce que décès bi wax dëgg fa yàlla c'est troublant xam nga li gënoon mooy. ñu def ko nii denc ko moo gënoon ñu denc ko ba pare ñu àndoon nañ ko def def tool gis xam loolu gis nañ ko fi ba tàyyi am na fi non bien sûr ñu denc nit ñu ne nañ ko sulli parce que ñoo defee ay examen waa ko indiwaat ko waaw léegi comme ñu def ni ñëw na def nii nañ ñu def li ñu war a def lépp balaa ñu koy jébal boromam te xam ne coow li ñuy wax ni moom soxlawu ko bu fekkee ne dafa am lu ci nekk on n'a rien à perdre pour xam lan moo ci nekk bu fekkee dara newu ci ñu xam ne jéem nañu te ndekk mbir mi nii kese la loolu la réew du doxee lan moo war a nekk ci ginnaaw mais koo xam ne da nga jug dem France. mais ak kañ la décédé aussi parce que tey. l'observateur sax nee nañ la posé wu la question certificat de de mort bi sax attesté que xamuñ sax euh, si ba mu toogee quelques gisu ko dafa dem. xam nga exactement mën ko gis mu wër a wër a wër a wër. ba depuis octobre ba léegi ñu ne ko mi ngi nii faatu na waxaatul ak jëkkëram benn yoon. waa léegi loolu noonu c'est troublant bu nekkoon beneen sénégalais la sax war nañ ko gëstu waxatuma laa mu nekk sénégalais boo xam ne li mu xam ci réew mi dafa bari. yoroon poste voilà. non li mu xam ci réew mi poste bi sax c'est pas truc mais li mu ci dafa bari. xam ci te Sonko tudd ko ci mbir moo xam ne bi biñ ko bi ko jomaay consulté bi mu njëkkee ñëw moom la ñi mu njëkk woo ci la boq ndax c'était l'argentier de l'État. Mhm. bi mu ñëwee mu defal leen le point ne leen nag dette bi bor bi dañ ko xaw a laal loolu la loolu lañ ci Ousmane Sonko mosal. Mhm. ñun on a envie de savoir la suite c'est lan moo suivre. mais xam nga tey jii nii. Ah. bi mu faatoo xaar nañ ba mu ñëw ñëw na mais xëy na durée bi ñu xaar ba corps bi ak si xëy na duñ ko xaaraat. Mm. procureur nen na reporté na mbir nañ ko may ñu def liggéeyam. mais nañ bàyyi enquêteurs ñu def seen liggéey. Mm. on peut duñ ci ñàkk dara parce euh, que soxnaam woo dañ ko tey. non du gis naa sax dañ ne dañ ne convocation dañ ne convocation mu ngi ci table procureur. voilà waxuñ ne tey la wala suba la xëy na mu ngi ci naqar euh, peut-être aussi dañoo bëgg xam rek enquête la. ndax bu ñu ko jëlee jox ko dikk xëy na moom bu ñëwee dina leen jox élément boo xam ne dina tendre ci piste bi wala dina tendre ci piste bële pour man loolu moo gën a yenn maanaam. te ñu moytu coow li wax ju parax parax gi yëpp surtout jamono jaru non parax parax bi yëpp jaru ko. parax bi yëpp jaru ko. nañu bàyyi yoon mu xool. duñ ci duñ on a rien à perdre. buñ gisee ne dafa am ay loxo yu ci nekk sénégalais yi xamee ci. et que ces responsables là ñu traqué leen. ak fu ñu mën a nekk. Uh-huh. bu fekkee ne dara amu ci. voilà yàllaa ñëw ak ndogalam dong amul benn pexe nit bu ci nekk mais ñu xam ne tamit loolu la. ndax dee nekkul moom moo fi njëkk de nekkul ne moom moo fi mujjee dee. loolu am coow li yëpp jaru ko nañu bàyyi di politique ci situation bu nekk. surtout genre yi. nañu tey jii bu fekkoon ne président Macky Sall moo nekk président de la république discours bi yëpp doo gis mu jug waaye discours yëpp doo gis mu jug. ça va est-ce que l'opposition waaye wu fi ñëw da dégg coow li fii nii. Ah, coow amu fi parce que les circonstances du décès étaient. mais moom daa feebaroon voilà. waaw loolu laa lay wax. Mm. les circonstances étaient claires et nettes mais am duñ ko xool duñ ko saytu ñaata kilifa ñoo fi génn àdduna dafa mës a jur coow bii nii nañu bàyyi yoon mu def liggéeyam te ñu bàyyi di politiser yenn dossiers am loo xam ne kenn du ko politiser. dafa am nit ñoo xam ne nag wax dëgg fa yàlla man dama leen di doon déglu mais dama dama benn moment damay commencé di di di naw seen gàtt xel ak seen gàtt xam-xam ndax di politiser desewu nit loolu faiblesse c'est affaire faiblesse la quoi nañu bàyyi procureur mu ordonné enquête am ordonné na ko nañu bàyyi policier yi ñu enquête bu ñu conc defee seen conclusion enquête après les gens sauront léegi nag ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te xare ko àjjana ñu jébbal ko ci jàmm et qu'il repose en paix moo Modou merci beaucoup di la jaajëfal bu baax a baax a baax mbégte la woon euh, doon seq yow waxtaan temps bi ñu cëralee nag jeex na waaw jërëjëf Ndeya non jërëjëf jërëjëf <laughs> euh, yaakaar naa li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko xam nga wax nag dafa jafe bu nekkee am na lu ci jub rek suñu borom la bu dëngee ñun la ñu ñoo uh-huh. matadi waaye daal di wax ne réew mi ñun ñëpp uh-huh. ñoo ko bokk ñun ñëpp ay sénégalais lañu intérêt bi ñu am ñun ñëpp mooy pour réew mi jëm ci kanam réew mi baax. Mm-hmm. réew nag am na nu muy doxee da ngay am njortu yu rafet te man wax dëgg fa yàlla dama bokk ci ñu gëm ne jamono bii nii maa am ay njortu yu rafet ci fu ñu jëm. Mm-hmm. léegi nag bu ñu demee tamit ba gis doxin bi changé. Mm-hmm. nañ taxaw fi waxoon ndax ñun aussi xam nga comme li ma lay wax rek ñun bokkuñ ci fenn. déedéet ay sénégalais lañu nekk ci réew mi. Sénégal lañu ñor. am suñu xel di ko xalaat di wax. loolu kese la di gërëm nag ñi nga xam ne ñoo ngi doon seetaan yëpp j'espère que fi ñu doon xaar accès àgg nañu fa. Mhm. répondre nañu seen attente yëpp. Euh, di leen jox daje. ba fekk vote bi passé. comme ça bu ñëwee affaire xam naa dina gën a yaatu. non dina a yaatu voilà affaire yi dina gën a yaatu incha allah rabbi bon di wax sénégalais ñu dem ñu voter dans la sérénité et dans la tranquillité mhm. et ñu def le bon choix. voilà incha allah.